ko boole la parce que ñi danañ ñu abal ci nii wala ci nële li ñu wax ministre bi ñu ko nee ko ñu ne Alioune Sarr duñ ak ak ak le CNG qui est là nous allons pas faire ensemble ouvrir la l'arène nationale ko nangu dañuy dañuy boycotté ñun du dem ñu lekk suñu xaalis ñu ngi tagg mel ni ñoom ñoonu moom làmb mbëri ci gën a métti promoteur wax promoteur promoteur waxaale combat waxaale mbërim ba d'accord ci prix moom mu tëdd këram di dagg xaalis di ko sàcc pour lan loolu bu ministre bi wax naa ngeen waxi góor ñu déglu ko jox na ko cër parce que kilifa la ñaan nañu lim ni ñaan dana ko ko may du yàgg ñii gars yi dañuy abal parce que ñoom jubunu jubunu mais ba depuis ñoom ba ka fi nekk boobu nan wax li dagg xaalis mbëri fa dugal ñaata mbër ñoo feebar équipe nationale dafa ñu leen ñaata aséculaire dañu ministre bi waxul benn jour dañu nañ ko déglu comme ñun wóolu ko ba wax waxtaan moom moom mu d'accord amateur làmb lañ ko déglu moo tax ñun ñu ngi déglu ñëpp te ñun ñëpp lañ lay aj déwén làmb du am ñu doon ànd ñu doon liggéey affaire bi ñu doon marché jusqu'au bout su jëree dem ñu sànni suñu bakkan parce que dafa métti ay mbër futti ko di bëri ñu dagg seen xaalis ko sàcce loolu dafa ñaaw nous sommes tous des Sénégalais et nous vivons de droit